pense que projet bi euh, démarré woon na depuis euh, ans euh, boo leen seetloo ne ouvrage bi ñu defar yi mooy station libération plus ak station de traitement de boue de binage mooy phase travaux bi gën a délicat parce que ci biir koñ yi la ñuy dugg day impacter directement les populations donc moo tax ci wàllu boobu ñu ñëwaat parce que xëy defoon nañ exercice bi ak euh, entreprise bi dem bi mooy NGE équipe bu e bi ak comité bi mais dañu jugé nécessaire pour euh, phase bi aussi comme entreprise Ecotra bi nga xam ne tey mooy defar réseau d'assainissement bi ñu ñëw aussi waxtaan ak ñoom ak yéen ci euh, problème mu projet bi ak travaux yi li mu mën a indi jur comme jafe-jafe ci population bi parce que booy xool réseau boo koy def day indi ay désagréments yu bare. donc comme ni ko monsieur le maire waxee y a eu beaucoup de plaintes dans le cadre de, de ces travaux donc euh, moo tax tey ñëwaat nii tey pour waxtaan ak yéen sur les mécanismes de gestion des plaintes ak sama naataango bi comme ni ko monsieur le maire waxee nga xam ne mooy responsable sauvegarde sociale bi donc tout ce qui est plainte ak euh, kii jàppale population bi ci biir projet bi donc moom c'est elle qui s'en charge donc euh, je pense que pour l'instant loolu la amoon lu ma ciy wax di ko jox peut-être kàddu bu gën a développé euh, sur ce plan maa ngi leen di gërëm di leen sant merci. af euh, nuyoo coordonnateur projet bi ak nuyoo chef de projet bi di nuyu aussi le maire de la commune de Koungheul ak euh, staffam yëpp muy le maire Ndiaye ak la deuxième adjointe madame Ndeye Binta. voilà de leen sant nag di leen gërëm parce que ñun Koungheul sa fait plus de deux ans ñu ngi fiy intervenir waaye li ñu fi gis mooy ñëpp jàpp ci projet bi ndax ñun munuñu ñëw rek def projet bi sans l'implication sans l'appropriation du projet par les population donc délégué yi fi toog yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax ne gis nañ seen taxawaay muy population bi yëpp ndax projet bi bi mu ñëwee accueillir ngeen ko mu doon seen soxla nit mën na la ñëw indil la ndimbal mais yow boo ci jàppul ndimbal la du dem te gis nañ ne depuis boobu fu leen woowee ci ay réunion lépp lu ñu fiy def ci activité yéen yéen a ngi ca seen tànk ca donc di leen sant di leen gërëm di wax ne aussi ne am nañ fi ñun fi nekkal ndax ONAS mënul nekk tout le temps sur le terrain am na ñu koy xoolal am na ñu koy defal am na ay loxo am na ñu koy xoolal muy entreprise bi ñu naan EDE e. jaxate mais ca la bokk ak njaade ñoom ñoo ñu fi toogal di ñu xoolal les travaux di ñu def mooy mission de contrôle yi ñu xoolal liñ fiy def jumtukaay yooyu nag muy ouvrage yooyu ñu fi ñu fi tabax dafa am ñoo xam ne seen xel da cee màcc ñu leen di natt di leen natt ba tànn ci Ecotra xelam màcc ci lool macha allah ñu tànn leen mu ñëw ci askan bi jaw moom moom moom ci la bokk ak euh, fiifee ñu ngi noonu toog ci fii ci bu jotaay bi mais dafa am euh, loo xam ne ne euh, ci mbirum liggéey yu mel nii boo koy def ci dëkk da ngay laalanteeg population bi ndax dëkk bi dañoo fekk dëkk bi ñu urbaniser ko mu am ay tabax nit ñi dëkk ci ba pare boo ñëwee ne yaa ngi def ay réseau yaa ngi tabax da am loo xam ne da nga ko def mooy dana am yàq bu jur njëriñ yàq la da nga yàq mais yàq li njëriñ a tax ñu koy def mais ñëwul ñu yàq rek pour yàq mais yàq la pour defar yàq yooyu nag da ngay jànkonteel population bi population bi bu ñu amul euh, xol bu yaa lool ak patience dañ mer lool ca loolu nag la bailleur de fonds bi xam ne ne tey jii moom moo yore financement projet bi moom ci procédure normalam dafa ne mbir yooyu buñ koy def il faut ñu am nuñ koy defee da nga fiy def ay mécanisme de gestion des plaintes nit ñi fu ñuy jooyee bu ñu jooyee nañ lañ lañ koy saafaraa ak bu ñu leen koy saafaraa nan lañ koy doxalee ba jooy ba xëy na du yàq walla lu ci bare jooy ba du am loolu nag tey mooy soloy bës bi ñu ne nag loolu boo koy def askan bi il faut que ñu ñëw ñu ne ñan ngay jël doo mun a woo population Koungheul bi yëpp mais dafa am lu ñu tuddee comité local de médiation sociale médiation mooy kuy dox jàmm avant police di am gendarmerie di am feneen di am mooy li fi amoon mooy ñëwaat dañ koy waxtaanee ci biir kër am comité boo xam ne ay délégué de quartier ñoo ci nekk am ñoo xam ne ne imam bu problème musaa na am ci gox dañuy dem ca imaam ba dañuy dem ca délégué de quartier ba waxtaanee ko ñu ne jigéen ña. ñooy yaay ñoo yore kër jigéen ñi dañ ci représenté ñu ne xale yu góor yi ñoomi jeunes yi dañ ci am représentant borom dëkk bi muy maire bi dana ci yónnee mooy tey ji yéen ñii toog fii yéen yéenay comité local de médiation bi ak comité local d'information et de bi ak ñan ñun aussi dafa am ñu ñuy liggéeyal ci dox gox bi ndax mbir boo koy def taw ñooñu xamul xamuñu dafa am ñu leen di dem ci askan ba wax leen ni ñuy def lan la muy le cabinet MSA xam ne superviseur bi ma mooy ma ma sama sœur doom bi Issa Fall moom moom lañ fi affecté fan yi moom ak yeneen relais ñoo fi nekk seen cordonatrice ki leen di coordonné ci projet bi mooy madame Tunkara mi mooy chargé de communication au niveau de ONAS donc gis nga mbir mu nekk ONAS du mën a taxaw mais am na ku koy liggéeyal taw liggéey yi dafa laaj waxtaan ndax fu waxtaan amul rek réeroo dana bare léegi nag soloy bës bi mooy entreprise bi mi ngi fii mi ngi def yenn population bi ñi ngi koy gis ñi ngi mer ñi ngi sedd monsieur le maire a ngi wootee tey nag yépp la ñuy teg ci taabal di xool lan la ñuy solutionné ak lan moo leen di merloo ak yu mel noonu bu buñ koy defatee nan lañ koy defee yéen ngeen wax li nekk seen xol ñoomit ñu wax ñu trouver ay solution comité bi mun a dox tey daal loolu mooy ci gàttal mooy solo yu bés bi du ma nag nekk fii di def comme formation universitaire di génne ay di kii déedéet dañuy wax ci li ñuy dund ñu wax solution yi ñoom it ñu wax waa ci noonu la ñuy defalee formation bi xëy na dana yàgg du yàgg mais daal ci ay waxtaan daal ci lañ koy basé di leen sant di leen gërëm bon après dañuy euh, waaw ñu dem voilà ñu def présentation bi ñu xam kan kan moo fi nekk lu am solo la monsieur le Euh, euh, manam Diallo kàddu gi mu fi jël gis nañ ne campagne la débat wax nañu tey lan moo sabab tey ñëwum fii moom ak madame Tunkara comme ni ma ko waxee si njëlbeen bi donc ñoom day ñëw pour waxtaan ak ñoom ñun la commune de Koungheul mi nga xam ne ñoo bénéficié projet bi nga xam ne am na bu am solo bii ndax projet boo xam ne à coup de milliards la donc ñun aussi dañuy mën lu muy di leen sant ak di leen gërëm waaw ndax ku am mën naa wax ne chance la chance la Koungheul bénéficié wu si projet bii ndax yaakaar nañ ne bu yeggee lépp loo xam ne wàllu assainissement la ndox mu bon nekk si kër yi yaakaar naa lu bëri dañ si wàññeeku au bénéfice des population donc loolu lu bëri dana ko réglé wàllu wér-gu-yaram wàllu cet wàllu assainissement donc loolu sant yàlla waaye nag wax na ko sànq. balaa ngay kuy bugg a defar dana dana mel ni da nga xaw a yàq ba yàq bi jur ay coow yaakaar naa ne muy yéen muy ñun sax ñaari fañ nit ñëw lañu ñun kat poussière bi sonal nañu nit ñëw na la ah yoon yi kat kenn mënatu fi jaarati ak moto wala oto yoon yi kat bëgg fi nawet fekkee vraiment population dañu sonn ñun à chaque fois aussi ah dañuy informer madame Diallo ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk projet bi waaye nag sant yàlla tey bi nga xam ne ñoom ñi nga xam ne ñoo yor ŋànk mbir mi ñëw ne leen ñëw nañu ah lépp loo xam ne yéen ko doon jàmbat di ko di ko di ko tawat dama ñëw pour ñu waxtaanee ko seet nu mu gën a rafetee ñu fexe ba andi sa ay saafara yaakaar naa dégg-dégg yi boobu lañ ci am yenn aussi yaakaar naa loolu ngeen ci am donc tey ñu xam ne tooguñ fu tey pour indexer day déedéet ñun war ñu taxawee taxawaay boobu population lam daan nag ku ne mën ngaa ñëw barki dem am na ay paa yu fi fekk fii def délégation ñoom mu kan ki nag dañ ñëw ne dañuy marche parce que poussière bi dafa bëri kiti kiti maire bu ngeen jóg si jógul ñun dañuy marche parce que suñu kanti yi mënatuñ jaay ma defal leen ndax ñun aussi loolu mooy suñu warugal yéen aussi ñun ñëpp mën a ñun mooy yéen ñun ndax ñoo ñooy membre de la commission te suñu cër bi index entreprise bi déedéet ñii kenn mënu leen fay parce que ñëw pour defaral ñu waaye nag dañ leen mel ne danañ yàq donc c'est le moment tey gannaaw ñoom ñëw nañ responsable ñëpp waxtaan ak ñu nañu seet ñu mu gën a rafetee ah ñu trouver ay solution ba loolu vraiment jàmbat population bi du suñu jàmbat ñu fexe trouver ay solution pour saafara ko yaakaar na waxtaan wi foofu la jublu ñun les membres de de la commission ëllëg dana am un suivi ba képp koo xam ne am nga plainte am nga loo jàmbat bu ñëwee si ñun ñu mën a wootee dañoo waxtaan diisoo kii aussi nga xam ne mooy responsable balaa mu fi jógee ñu jox ko ay proposition yu concret yoo xam ne dinañ si mu ko mën a sukkandikoo pour saafara jàmbat askan bi yaakaar naa si gàttal man loolu laa xalaat ne vraiment loolu mooy jubluwaayu daje bi madame Diallo xanaa ñu ubbi benn liste si vous le permettez képp koo xam ne am nga xalaat boo si sànni wala proposition wala solution donc ñu wax ko te ñu mu gën a rafetee yaakaar naa samay bàyyi ak si jot sax wax yaakaar naa ñun ñëpp xam nañ leen donc ñu wax wax wax ko incha allah Eh, mécanisme de gestion des plaintes def nañ fi formation bi def nañ fi formation ak les membres di comité local de médiation membres du comité local de suivi du projet ah, ci njëlbeen ba euh, Koungheul dafa bokk ci projet bi PAMIR xam ne euh, programme bu yaatu boo xam ne démarré nañ ko ci le bassin arachidier Koungheul bokk ci Koungheul bénéficié wu d'une station d'épuration des eaux usées mooy step bi bi nekk fële ci booy génn Koungheul ak station de pompage moom la Ecotra di defar ak réseau donc macha allah ñoom ñu am ci euh, lu am solo mbir nag boo koy def yu mel noonu fekk dëkk dëkkukaay bi nit ñi nekk fa ba pare am na loo xam ne ne euh, il faut ñu jaar ci mooy dangay fekk nit ñi dëkk ba pare nga laaj ñëw maire bi ne ko fan la ñuy def ouvrage bi mu ne la fii lañ koy def xëy na nag nga dem fekk foofu boo dee fekkee foofu am nit ñu dëkk il faut que nit ña jug doo leen wax eh jug leen seen bagage ngeen ngeen dem parce que état moo soxla déedéet doo ko wax da ngay ñëw waxtaan ak ñoom nga am même buñ ko moomul c'est un projet d'utilité publique da ngay ñëw waxtaan ak moom mooy les procédures opérationnelles de la banque mondiale yooyu mooy normal nga ñëw waxtaan ak moom ne ko ah yow de yaa moom mais nag ah projet bi dafa ñëw soxla ko te néew na sax ñuy jël fu nit ñëpp dëkk ñu dem jël def ko fa ndax Koungheul dafa da am spécifité gis nga réseau bi ci marché bi la waroon a jaar yëkkati magasin yu bare maire mii damay wax tout le contrôle du maire ñëw nañ fi ñetti yoon première fois bi cent dix-huit personnes ñoo waroon a jug ay magasin ñu demaat ñëwaat soixante-dix-huit personnes war a jóg ñu dem ba ci quatre personnes war a jug kon nag sant yàlla ay liggéey bu xarañ moo ko waral ak pasteefu autorité administrative yi ak locale yi loolu moo tax tey jii ñu yem ci ñeenti personnes yoo xam ne war na fee jug yàlla dimbali nañu step step bi fële bi ñu koy def it yàlla dimbali nañu foofu foofu fekkuñu fa woon lan fa fekkoon ay born la te loolu waxtaane woon nañ ci ancienne équipe bi ba mu xamal nañu ñu joxuñu leen ko loolu defe naa ne am na sax yo ay jéego yoo xam ne ñu ngi ciy dox ba léegi duma ci appesantir parce que du euh, du soleil bés bi beneen bi mooy estation de pompage bi bi ñu ñëwee ñëw nañ ci ay yoona ci yoon dem ak dikk dem ak dikk ñu ne ñu kenn amu ko ñu ñëwaat defaat fi ay réunion ndax Koungheul dafa yàgg ndax réseau bi moo tax mu yàgg ndax nit ñi ci nekkoon ñu war a jug dafa bare moo tax yéen pratiquement ngeen tardé ñu ci bare pare leen nañ mais fii dafa des parce que nit ñu waroon a yëkkati dafa bare te loolu yàlla dimbale nañu ba amul ñu ne nag loolu boo koy def nga am da ngay dàmp nit ki. boo nee fekk nga ko ci fi ngay defaree mu jug nga gunge ko bu doon activité bu muy def la nga gunge ko sax ba mu reprendre activité bi ndax doo jël magasin boo xam ne fa la doon jaayee ay pièces détachées nga jël ko ba pare fay ko joxaatoo ko magasin moom it mënutul liggéey loolu mooy yaa ngi koy yóbbu ci foo xam ne ne. vraiment baaxul ndax nit ki boo ko jëlee lu muy liggéey war nga ko li ñuy wax reprise des activités respectives la moom amoon waroon nga ko war na ko continuer ñun de yàlla mi ñu ciy jàppale ci ONAS projet bi ak waa PAMIR ñu gunge leen ci fay nañ leen wax dëgg yàlla beneen pàcc bi ci des mooy réseau bi ci fan yi néew dañ ñëw fay leen ndax foofu ta ta loolu réseau bi xam ne Ecotra mi ngi koy continuer dafa war a jaar ci benn magasin léegi gas yooyu ak liggéey yooyu souvent day indi jafe-jafe ci population bi ndax yéen sax xam ngeen ne boo gasee yaa ngi xaj nit ki fu mu jaar ak otom fu mu jaar boo gasee sa poussière bi boo gasee dana am ay jafe-jafe te munoo nag li tubaab di wax munoo def omelette tojoo ay nen waaw ndax lépp lenn li mun naa am mais nag noo koy defee ak na koy defee ba population bi duñ ci sonn loolu it dafa am solo dem nañ ci ba nga xam ne ne sax yooyu day nekk plainte yu maga a mag a mag a mag yoo xam ne ne ñun duñ ko mun a lijjanti day sore moo tax na ñu ne askan bi da nga leen di woo am foo xam ne ne fu nu jooy dañ fay dem jooyee fa waaye rek gis nañ ne rek yom fiifee ngi ñëw di gas rek nga daal di ñëw doo xam foo koy jooyee nga dem maire de attaqué maire bi wala nga dem attaqué préfecture wala keneen ak keneen du déedéet askan lu mu munta faj amul ñu metre en place le commité local de médiation mu composé ay imam ay délégué de quartier ay jigéen ay ndaw ak lépp ngeen ne toog leen ku am looy jooy nga ñëw foofu ñu ne ah duñ ko yemale ci askan bi rek entreprise bi ñëw dañ ci leen ciy toftal ñu bokk ca entreprise bi aussi dañ ko wax tout le temps nay wut un responsable bi nga xam ne mooy def hygiène sécurité ndax fi ñuy liggéey en général souvent dañuy gas def ay saleté def euh, euh, te du am sécurité des fois ñu gas am foo jaar te boo gasee war ngaa créer nit ki tegal ko benn daal defe naa danaa bàyyi euh, yoom Cissé ñu wax ci foo xam ne nit ki mun na fa jaar wala boo gasee war ngaa def nenn noo xam ne ni nit ñi doo ñu souffrance bi bi ñu war a am dans dix jours xëy na ñu am ko trois jours li ci des nga lijjanti ko ñoom laay jox parole après ñu wax yooyu nag yooyu la ñuy bëgg a waxtaane tey jii pour ñu xool ñaata nan la population bi ci problème yi ñuy nekk lan lañ ciy jànkonteel ak bés yi nii dem xëy na li passé passé na mais nan lañ koo solutionné ba nga xam ne leneen luy ñëw ñoom duñ ci am problème danaa leen delloo parole bi yéen ngeen wax ñoom ñu wax ñu trouver ci ay solution sans plus tarder je vais donner la parole à nu mu tudd monsieur euh, le maire Ndiaye moom mu waxtaan ndax déggoo jég ay ay bu bu yàgg daan nañ déggante am na yu ñu doon wax ñu ni déplacé wu nañ fi ñëw fii te am na loo xam ne da ngay defar waaye mun nga yàq lu bare te ñoon bëggeewuñ ko lool dañu bëgg démarche participative ndax li ñuy def ñun munuñu ko entre euh, ouvrage yi munuñu ko réaliser on day jël ku ko ko defaraat ki ko ko defar li àddina dafa wër képp ne ñu mën lañ ñu mën li ñuy def lañ moo tax ñu teg leen fa néew ñu leen dem leen am problème ak kii bi déedéet déedéet déedéet déedéet population bi war na am tuuti ubbeeku tuuti xool bu yaatu pour xëjal leen ñoom it war nañu am xool bu yaatu pour gaawantu ci li ñuy def ci maanaam ci fànn yooyu nag en wolof bi taxawul demee noonu mais ci loolu lañuy waxtaanee danaa leen delloo kàddu gi ku nekk am loo ci wax ñoom ñu wax ñu ñu xool nan lañ koy la ñuy solutionné yenn problème chez le maire. maire bi nga xam ne itam moo ñu dalal di nuyu itam euh, délégué de quartier ak population bi teew yëpp kenn ku nekk ñu lay nuyu si tur ak sant di wax ne man de dama baaxul dem ci atelier ñu wax nga nopp man atelier moo fekkee danaa wax sama wax bu jubee danaa wax bu jubee danaa wax man loolu loolu la ma yàlla bindee. li nga xam ne man moom la ci xam mooy liggéey bi ci suma gis-gis moo doon xalaat bi ma ci am daal moo doon su fekkee ni nga xam ne bu ñuy liggéey comme ni ñuy def nga xam ne dañuy gas. buñ gasee benn mbedd mbedd boobu noonu ci suur boobu wala ci deuxième suur bi buñ dugalee tibe yi maanam ñu euh, suul ko redressé ko nga xam ne foofu dootu am benn problème ñu jàll feneen mais su fekkee da nga topp dëkk bi yëpp de gas de gajal fu nekk nga gas dugal tiwu suul soo boobaa poussière boobu ak euh, euh, pour moto yi ak moto yi du mën a jàll lu daal nekk noo xam ne man xalaat bu ma amoon naa ko dama la xalaat ne daal ak surtout nag quartier yi nga xam ne àgguñ ci mu jàggi ëllëg ñu préparé loolu fu ñu fi dem bu fekkee nga xam ne dañu topp mbedd moo xam ne nangam mètre la ñu gas mbedd moomu gas ko ba seen wàcc jot di nga am ñu dugal tiwu yi suul ko maasal ko ba mu maasee ñu redressé ko ba mu ba ba mu redressé ñu bàyyi di nga am jàll feneen su boobaa ne du ma dina dina population population bi wasalaamaaleykum wa rahmatulah. ñu nga àndal di nuyu mu seen maire aussi ak mbooleem naataango yu fi nekk muy conseil yi délégué de quartier yi ak imam. man de sama gis-gis eh, mooy nañ gën a def sensibilisation ci population bi nga xam ne ñoom la waa ONAS di liggéeyal parce que ONAS xëyu ñëw rek di fi liggéey dafa am fuñ jaar ba xëy di liggéey liggéey boobu nag dafa am luñ ci war a bàyyi xel mooy bu liggéey bi xembee li nga xam ne moom lañ ci jublu mooy jàppale population bi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal eh, muy liggéey boo xam ne bu ëllëgee daf leen di indil njëriñ parce que bu xoolee njëriñ li ak par rapport ak li nga xam ne moom la moom la moom la liggéey bi di sene fi mu nekk nii ci population bi moo xam poussière la moo xam leneen la ak lu mu mën a doon bu fekkee population bi def nañ sensibilisation ci ñoom bañ xam ko defe naa danañ ko war a mën a muñ lu mosta am nag ci béréb su fa amee dana am leneen lum xewal loo xam ne du méngoo ak li nga xam ne moo daan xew parce que soppaleku la ñu bëgg soppaleku boobu nag day am solo mais pour ñu am solo si foog ñu muñ li nga xam ne mooy coono bi moo xam poussière la ak lum mën a doon parce que dafa am benn bés yàlla moo ma ko dajaleloo du question sax poussière mais dafa am ñoom bu ñuy liggéey ay barrages yu ñuy def ci dëkk bi mais barrages yooyu ñuy def gis naa ne am na ñoo xam ne respecté wuñu ko sax dañuy gis barrage ci yoon mu wóor leen ne am na lu ko baare li ko baare mu nga ca kanam di liggéey mais dañuy continuer jaar ci barrage bi bëtt barrage bi continuer yàlla benn bis mooma ko dajaloo benn sareetu mbaam bu xam ne ki ko yor munut munut ko téye bu baax seen oto mu ngi ci kanam dafa dàq mbaam mi munut ko contrôler dem ba dóor mbaam bi ci eh, balankaaru sareet bi eh, ci ci seen oto ba oto bi xoosu foofu yëg naa ne ñoom dama ko tombé juste rek ñu ngi taxawal borom saret bi borom oto bi aussi mu ngi taxaw dafa téléphoné chef am mu ñëw xool xawma ci ñoom kenn même borom saret bi aussi xaw ma ko mais xam naa ne ci dëkk bi la dëkk. loolu bi mu amee ma taxaw di leen déglu rek ñu ne ko du ñu leen waxuluñu la dara teguñu la dara luy jafe aussi mais lii day loo xam ne teguwut ci yoon. yow gis nga baaraas bi da nga bëtt baaraas bi. xam nga ne am na lu tax ñu baare ci kanam respecté woo ko parce que boo respecté woon doo am lii da nga doon tourner mais mun nga dem ak sa sareet mais ngeen di ñu bàyyi xel xam ne ñu ngi liggéey ci dëkk bi te dëkk bi moo tax ñuy liggéey dama bëgg ñu def sensibilisation commission bi ñuy teg fii bu ñu nañu def sensibilisation ci quartier yi nga xam ne ñoom ñoo tax waa ONAS di liggéey ñu jox leen cër boo xam ne fépp fu ñu nekk di liggéey nit ñi nañ di bàyyi xel foofu poussière bi nag moom mënul ñàkk wax dëgg yàlla parce que gas-gas moom bu amee poussière bi balaa dal foog mu am deux jours trois jours quatre jours yoo xam ne ñoom buñ paree seen liggéey nit ñi jaar ci suuf si mun a damee maa ngi sant ñëpp di leen gërëm ngeen jégglu ma nag ci guddal bi euh, di rafetlu aussi teewaayu ñëpp euh, di rafetlu d'abord rencontre bi ak aussi comité bi ñu fi teg parce c'est vrai que le plus souvent comme ni ko ki doon présenté exposé bi début bi waxee euh, Sénégal dana am cosaan cosaan bi mooy bu problème amee ñu waxtaanee ko suñu biir te imam yi la délégué de quartier yi ak personne ressource yi ci nekk kon ñooñ ñoo teew fii te aussi ñooñ laa gis ñoom ñoo composé euh, comité bi di rafetlu aussi liggéeyu liggéey bi ONAS parce que quoi qu'il en soit ma koy wax chaque fois barki démb rek dama ko wax benn nit mooy doon dox mu mu interpellé ne ma gis nga sunu buntu kër suuf poussière bi mënatuma toog si buntu kër gi ma expliquer ko njariñu projet bi parce que euh, dafa am témoin dama ko fekk euh, oto bi kii duus yi mu toog foofu mu koy fay ma laaj ko ñaata si mois bi ñaata yoon ngay utiliser oto bi pour sa fosse bi mu ne ma ay temps dinaa si fay quarante cinq mille mooy trois fois euh, ma ne ko nag lii ñu def fii nii nag quarante six million yooyu sa quarante cinq tey ressource lay doon si yow parce que lii bu paree tey li nga xam ne moom moo nekk si si biir kër gi yëpp day jugee foofu jaar fii dem kon chaque mois yow déjà bu lii paree mën nga am benn épargne de quarante cinq mille francs loolu boo ko defee par at ñaata ngay am si xaalis mu ree ne ma ah man de loolu xaw ma xawoon dama yaakaaroon ne ndox miy génn si si mbedd yi rek li ñuy jël sotti ko fii wala ndoxu taw yi lay lay yóbbu kon damay rejoindre foofu li Pa Ila Touré wax mooy que information ak sensibilisation parce que nit ñi buñ comprendre euh, projet bi lan la leen di jariñ rek yaakaar naa ne réclamation yi mu ñàkk mais yaakaar naa plainte du am te nag quand même ñu ngi jël ay réclamation comme ni ko maire waxee barki démb am ñu fi ñëw ne dañuy marche ay temps noonu la ñuy doxee si dëkk bi rek nit ñi dañuy xàmmee woo ñu dañuy interpeller lool nag benn cas la rek mooy poussière bi je pense que société bi ay professionnels lan fu ñuy liggéey duñ fa yàgg le plus souvent bu ñu defee barrage balaa benn ngoon da gis mu pare loolu kay am ñun ñu ngi koy constaté mais le problème mooy euh, Koungheul dafa dafa dafa banee euh, suuf bi dafa am dafa bëri ban te le plus souvent si noor la nekk dafay dafay bu fa sare di jàllee wala moto yi poussière bi dafay dafay bëri donc te loolu bu ñu bu ñu si dimbalee ba essayer suufu ban boobu ñu koy delloo si biir dugal si saliñ mu nekk si suuf ñu ñu ràmbale ko ba mu dëgër nivelé ko yaakaar naa ne poussière bi dana dana wàññeeku mais instant population bi dana xaw a ragal parce que dañ naan ban bii nii bu si bu fi nekkee bu nawet bi ñëwee bu tawee pour ñu jaar si dafay am ay risques je que loolu moom mooy daal man li ma yaakaar ne bu ñu si dimbalee mën na am ne affaire bi dana dana gën a yomb si ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk ak ak autorité municipale yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk merci beaucoup rafetlu projet bi d'abord euh, ñun euh, en tant que euh, représentant population bi di dañuy dañuy ñëw lu bari di plaider di di di plaider di naan yoon bi kenn mënu fa jaar kenn mënu fa jaar mais dañu leen di xamal ne que projet bi lu am solo la te aussi bu ëllëgee bu paree yow sa ndox doo doo ko tuur sa bundu kër loolu moo ci gën a tuuti te moo ci gën a am njëriñ man de benn proposition encore laa bëggoon joxe bu fekkente ni munoon nañ di arrosé bu ñuy gas ñu arrosé parce que dafa am solo poussière kenn du ko xeeb euh, xale yi dañuy daw di dajeek ñoom mag ñi aussi borom ma yeeg affaire yooyu boobu daal laa gën a kii bu fekkee mun nañ ko di arrosé door door a kii nii door a gas te wuñ gasee ñu maasale ko defar ko ba mu rafet maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. mbooloo ñu ngi di nuyu kenn ku nekk. ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi mu le maire di ci teg madam Diallo ak euh, madame Tunkara ak euh, conseil municipal bi fi daje ak délégué de quartier yi ak imam yëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di nuyu itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci service bi di liggéey ci dëkk bi ànd ak ñun euh, di leen sant bu baax di leen gërëm di wax ne projet bi de xam naa ne ci biir Koungheul ñu bëri xam nañ njëriñ li lan la am na nag ñu ko xamagul mais am na ñu xam lan mooy njariñu projet bi ba loolu tax na yaakaar naa ne plainte yi bëriwul na war a bëree njàmbali nag bëri na ci poussière bi ak pax yi parce que Koungheul dafa bëri ay moto bëri na ay oto bëri na ay charrette euh, te pax yi nga xam ne dañuy gas ba pare te maasalewuñ ko nekk na lu indi jafe-jafe ci seen biir te loolu defe naa ne ñoom ñii nga xam ne ñoo yor service di fi liggéey defoon nañ fi benn réunion keroog man la monsieur le maire yónnee woon foofu ma dem fekkee réunion ba bañ fa pare tënku nañ ci daam siise mi yaakaar naa ànd nañ ci mbedd yu bëri di wër muy maasale fu am pax nga xam ne mi ngi sonal borom moto yi wala mi ngi sonal nit ñi oo naa ko téléphone ndax keroog demee réunion ba lañ ma jox ñoom ñëpp seen numéro heure bu ma ko ooyee mu ne ma ban mbedd la ñëw na ay yoon sama kër ñu ànd ma koy won ay mbedd yoo xam ne dañ koy maasale xëy na dajagut waaye nag li gën a bëri ñoom ñu ngi ko doon mangé le poussière bi nag waxtaan noonu nañ ci sax ba ne woon dañuy fexe ba am ay citerne di arrosé mbedd fu ñu mangale arrosé ko pour mu mën a dame ndax fii Koungheul suuf bi ban la te li génn liñ gas mu génn pax yi dañoo xóot ba nga xam ne suuf bu xonq bi mënul jiituwaat ci biir ba jeex foog mu des ci kaw te bu desee ci kaw foog mu ànd ak poussière mais buñ ko arrosé woon day damee comme ciment day damee ndax ban la moo tax te bu ñu koy arrosé doo arrosé rek bàyyi saret yi jaar ci parce que day rappajoo mais da ngay baare arrosé su woowee boo dindee poussière bi du tu bëri te mbedd yi danañ mën a maase defe naa waxtaanoo nañ ci man ak euh, daam bam ne ñu danañ fexee wut ay citerne ñu koy arrosé mais nag teewul pour maasale bi ñoom ñu ngi ci doon continuer di ko def mbedd yu bëri day ñëw jël ma ci oto ñu ànd maanaam ko fii baaxul ñu maasale parce que li ñu ciy moytu mooy dafa bëri ay moto te moto yi ay xale ko yor te dañuy supporter ay jigéen ay mag ak ay xale day gis sax ku supporter boot boot sa doom pare ñu jël moto lu yëpp dañ ko ciy gis te pax yi boo ci dalee daanu maradita lu ne mën na ci am moo tax ñu bëggoon pax yi ñu koy taxawu ci maasale bi comme ni ko imaam waxee fu fuñ gas ba defar ko ba pare ñu fexe maasale ko ba dañ faa jógee benn yoon mu mu wàcc leen mais soo ko fa bàyyee di waaj pour ñëw maasale ko leneen mën na fa am parce que nit ñu togg ñoom kon nag ñu ngi leen di ñaan ci maasale bi su fekkee arrosage mën na am ñuy arrosé su mënul amit ñu fexe mbedd yi maase ndax xam naa yàlla ji moom bu tawee yëpp mën na mën na damewaat mais bu tawee aussi te fekk mu nooy foo jaar da nga da nga doo dem parce que suuf bi ban na mais bu ñu ko arrosé léegi ba mu dëgër ba mu ba mu jàpp ba dëgër bu taw bi ñëwee day day day maase day mel ni peron day dëgër parce que suufu Koungheul moo mel ni boo gisee suuf bi sax dafa xonq parce que li tax mooy ban la moo tax kon nag ñu doon ñaan ci loolu su fekkee gas ngeen mbedd ba installé seen i tuyau ba ngeen faa jógee maasale leen ko benn yoon mu maase bu ñu mënee am arrosage ñu arrosé ko bu woowee rek jeex na du dootu am la njàmbatu Koungheul yëpp mooy euh, poussière bi ak pax yi mooy seen njàmbat te loolu wax nañ ko maire du benn du ñaar ku nekk da ñëw képp koo xam ne nekk nga ci mairie bi ba ñu ràññee ci rek ñu ngi lay réclamer ci yu mel noonu ñun tam ñu ngi taxaw nag ci askan wi di leen nax di leen femm di leen nàmm parce que nit ki ñëw di la dimbale pour nga am lu baax yow boo comprendre ki comprendre moo la mën a wax ba nga xam fi ngay teg sa tànk mais duñ leen seetaan ñuy dal ci kaw ñi nga xam ne ñoo fiy liggéey duñ leen seetaan aussi ñu leen di xatal ñu ngi waxtaan ak ñoom ci yu bëri yoo xam ne ku ci am lu jaaxal boo ñëwee danañ lan danañ waxtaanal ba sa xel dal nga xam ne ñii liggéey moo leen fi tax a ñëw te comme li madame Diallo wax léegi bala nga omelette foog nga toj nen soo bëggee defar lu baax foog nga am loo yàq mais li nga yàq nag dañ koy mën a muñ ba lu baax ñëw ñu mën a am lu baax ndax lii nga xam ne moom la Madia wax léegi am na ñoo xam ne projet bi xamuñ ci lu bëri xamuñ ci lu bëri parce que nga ñëw fay quarante mille francs bokk ci projet bi nga bañ ko ngay fay oto bu leen vidéo sa douche ngay fay 45000 pendant des at mi mën nga cee vidéo ñetti yoon ñeenti yoon ma xam nga loolu bokk ci projet bi moo gën te loolu nag information bi ñun ñi fi dëkk aussi ñun ñooy waxtaan ak askan wi di leen leeralal di ubbi seen bopp xamal leen li projet bi di jariñ ba ñu bëri mën ci intégré wu ba loolu dana yokk euh, doole projet bi waaye loolu laa amoon lu ma ci wax di wax ne nag ñi fi nekk di liggéey wax dëgg yàlla jàmbaar lañ parce que daam mii de heure bu ma ne ko mbedd sàngam nit ñi jàmbar nañ day daal di jël tracteur bi ànd ak otoom ñëw ñu dem fa ñu maasale dajagul nag mais nag bu ñu ko doon def ni ko imaam waxee bu ñu gasee ba lañ faa jógee maasale ko réclamation sax du am parce que foo génn rek mu baax ñu leen di ziare di baloo ak municipal bi gërëm aussi suñu partenaires yi waa ONAS yi nga xam ne ñoo ñëw Koungheul encore pour ñu waxtaan ak yéen gërëm aussi bi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi gërëm l' ensemble des conseils municipaux ici présents ak les délégués de quartier di rafetlu lu baax jataay bi ndax wat gaal ak yëgoom te ñu bokk teen ñoo laxo sooy goj yaakaar naa ne waxtaan bi am na solo li may wax rek mooy si la ma frère Madiaw Mbengue wax ak euh, ñi ma jiitu ñëpp mooy renforcer la sensibilisation ki nga xam ne xamul te nga seq moom liggéey li la war mooy nga xamal ko sensibiliser ko ba fi ngeen bëgg yegg ngeen yegg fa su loo rek bu réeroo amee rek liggéey bi day am gàllankoor mois je crois que ku gis ONAS li mu liggéey ci Koungheul ak travaux yi ñu démarré am na solo am solo goo xam ne nit ñi liñ moom africain rek ñun dañoo baaxoo ne lépp lu la yomb nga sàggane ko mais bu la jafee nag ngay daw ci gannaawam di uti waaye bu la yombee rek nga ne noonu li ñi dañ may yàqal waaye ku ne xam ne ne ONAS investissement yi muy def ci réew mi ñëw ba Koungheul mu def ko fi wax dëgg yàlla am na lu ñu njëriñ am njëriñ boo xam ne li ñu war a mooy ñu waxtaan ak suñu naataango mooy suñu askan te loolu mooy njëriñu comité bi waruñ xaar rek ba réunion am ñu daje waxtaan ak partenaires yi tasaaro dañu war di dëkk di sax def ay émission radiophonique am na ay sites yu fi nekk xibaar bambug ak Firi Info ñu fay dem di wax ak askan wi loolu bu ñu ko maire permettre comité bi am na ñoo xam ne ñu ngi fi mën a def ay émission rajo waxtaan ak nit ñi parce que ki nga seq mbir li la war mooy nga waxtaan ak moom africain ak sénégalais li mu xam mooy ku dem ba ci moom waxtaan mu yëg ko danaa faral di wax ne ku ne bëgg nga ki la ba mu des sàcc sàcc mu ko yëg mais ku la ku mooy bëgg nga ku la nit boo ko yëgee jox ko lim moom waxtaan ak moom rek li nga bëgg mu def dana ko def coow yi ñu coow ni plainte yëpp li ko war rek mooy manque de communication ak d' information je crois que bu ñu ko renforcer rek li ñu bëgg ci askan wi dina ko am ndax entreprise yi dëgg la ñu ngi liggéey liggéey bu mucc ayib ñun ku ngi leen dëkk demuñ fenn ñu ngi ñu ngi liggéey chaque jour li ñuy abattre dëgg la on ne peut pas faire une omelette sans pour des œufs mënul nekk ku bëgg akara il faut nga jëm xam leen ko liggéey bi li muy jur après résultat yi xam leen ko kon li ñu war moo ñu waxtaan ñoom bu ñu waxtaan ak ñoom ba defal leen xam li ñu bëgg yaakaar naa ne euh, danañ ko am te aussi macha allah aussi projet bi aussi ki ngeen ko jox muy liggéey ñun ci commune bi di doomu Koungheul muy xale bu am jar am teggin parce que nit ñi aussi pour ñu am fu ñu il faut ñu naw sa jëf na naw sa jikko muy mu nekk ay dara ñu am chance loolu aussi parce que bu doon xale boo xam ne aussi fu mu romb ñu ne noo kii dafa am amul yar faalewul kenn pour nit ñi jëflante moom du yomb te macha allah ñun xam neen ko doomu Koungheul la am na fu ko waa Koungheul teg ci yaram ak teggin moo ko may kon loolu aussi c'est une chance le bureau municipal aussi ñoom tamit am dal boo xam ne ku ñëw wax ñoom ñu defal la nga parce que tey ñi fi bëgg def marche bi maire Ndiaye waxee ak ñoom dañoo teg lépp ci suuf loolu yar teggin moo ko a may loolu yar ak teggin mën mënta may dara du la ko may kon loolu aussi seen dal moo leen ko may aussi ñoon ci gërëm di loolu leen sant di jégalu ci mooy incha allah ñun nous sommes prêts à accompagner le projet duñu accompagner le projet mais suñu bopp leen accompagner parce que lii te dañ ko moom ñu boole ñu ci kon li ñu war moo ñu bay bay bay bay ci suñu waar bëri saa yi ci bëgguñu am ko ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp jërëjëf jëf euh, daanaka wax ji boo seetloo benn la rek waaw wax ji toujours sensibilisation la rek information je pense que ñi doon wax waxu marche boo gisee ñuy wax souvent li ñuy wax yëpp fii lay yem mais bu ñu gënaatee rek du am benn suivi man loolu moo ma ci xaw a métti parce que chaque fois ñu wax sensibilisation chaque fois ñu wax information mais ci salle yem je pense que depuis ba ñu ko waxee bu njëkk suñ ko teeloon def yi marche yi ñuy wax yëpp du doon am donc nañ continuer ci sensibilisation wax ji yëpp lenn la rek poussière bi la rek ak kàmb yi loolu rek mooy indi coow li su ma fóotee sama yére yi day tilim ndax poussière bi kër gi kenn mënatu fi nekk chaque jour damay bale coow loolu rek ngay dégg wala oto yi naan bu may dugg ci kamb bi laay dugg donc loolu bu mu yem fii comme ni ko Géer waxee léegi am nañ ay presse locale baa ngi fii nañ wax ak ñoom wala dem ci quartier yi commission bi nañuy dem ci quartier yi délégué quartier yi convoqué nit ñi ñu waxtaan ak ñoom sensibiliser leen loolu mooy wax ji mais duñ toog ci salle bi rek information rek mu yem fii loolu du du du ko saafara il faut ñu jóg def li ñu war a def bu loolu weesoo man projet bi dama koy rafetlu man li ma ci métti ci projet bi rek mooy lu tax jéggiwul tali bi ñu loolu moo ñu métti waaw loolu damay laaj ndax ndax suivi ndax am na ndax projet bi day continuer ba mu jiggi mu jéggi tali bi ou pas parce que man loolu mooy sama problème parce que man ñi fi projet bi jaar man ñooñu dama leen ñee ñun dañoo am problème boobu chaque fois man quartier yi dama séq ñaari côté benn bi ñoom projet bi laal na leen beneen côté bi projet bi laalu leen chaque fois dañ may laaj kañ la ñun est-ce que dina am wala duñ am loolu tam bëggoon naa ngeen gën ñu ci jox leeral wala actuellement ñi amagul ñoom ban solution ngeen leen jëlal bu fekkee am na waaw maa ngi jégalu ci kàddu gi. ku mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant. di dalalaat encore une fois sunu gan yi madame Diallo madame Tunkara ñu ngi leen di dalal bu baax di nuyu imam yi délégué de quartier yi fi nekk yëpp ak waa Ecotra ñu ngi leen di nuyu bu baax di wax ni que daanaka wax bi benn la ñaxtu bi moom benn la parce que ñun ñoo travaux yi ci diggante kër yi lay jaar mënul ñàkk comme ni ko madame Diallo waxee parce que dafa dañoo fekk ñu dëkk ba pare ñu ñëw bëgg ñu gën a ñoŋal sunu sunu sunu nekkin donc euh, il faut mu nekk defar boo xam ne day nuru yàq mais à defar lay doon lu baax lay doon xëy na nag dina jafe ci période bi ndax poussière beeg euh, mbedd yu yàqu yeeg yooyu mais tamit euh, muñ ko yaakaar naa du jafe parce que boo xoolee njariñ bi mu lay jural ëllëg donc muñ ko du jafe donc dinañ ko muñ waaye nag euh, ni ko ñuy waxee rek sama tonton bi sensibilisation bi commission bi dafa war a dund ni ngeen ko waxee après peut-être mën nañ si liggéeyaat si ñun ñunu ñunu neen ñu liggéeyaat si ba xool naka la ñuy defee peut-être émission yeeg at euh, yenn yenn information yi mu gën a jàll parce que nit ki mën nga ko indil njariñam mais du ko xam su ko xamul nag du xam naka la koy téewee su ko xamul du xam nan lay muñ laan teg yow parce que ñoom sax xëy na ñoom ci seeni wax ñoom dinañ ko wax ndax dinañ jànq wante koo xam ne dina la wax ne puusal sa machine bi sama wetu kër wala yaa ngi may yàqal li yaa ngi may yàqal li fekk xamul ne machine boobu dafa ñëw pour defaral ko dundinam parce que fii ku gis ne vidage daf fi metti daf fi metti trop trop trop pour nga gis camion bu la videel sax problème la da nga yor xaalis sax te doo gis ku la videel donc bu ñu amee projet bu mel nii wax dëgg yàlla dañ koy jàpp ak fukki loxo ñaar donc di leen wax ni que rek rafetlu nañ projet bi tamit euh, dinañ ko jàpp dinañ jàppale waaye ci kaw tamit nit ki xam li nga ko indil bu xamee li nga ko indil à cent pour cent dina gën a jàpp bu baax yow miy liggéey di nga am jàmm moom mi nga koy indil tamit dina la gën a yaatal donc yaakaar naa kàddu gi benn la loolu la maa ngi jaajëfal ñëpp merci. di dalal encore euh, suñu gan yi nga xam ne kenn du leen présenté euh, mun naa ne Koungheul lañ bokk léegi di rafetlu bu baax liggéey bi ba fi mu yem nii. je pense que kàddu bi c'est unanime mooy li ñëpp wax rek euh, communion communication waxtaan moom euh, ci la lépp di sottee et que je sens que Koungheul waay approprié wu neen projet bi parce que bu ñëwee ba fii nii amul benn coow boo xamante ni coow bu majeur la wala problème bu sérieux et tout euh, mooy que approprié wu neen ko mais gën leen ñaaxaar rek ñu muñ Euh, parce que soreetul léegi tey incha allah ñëpp bég ci ñëpp rees yi di wax rek euh, équipe technique bi ne sur le terrain aussi par rapport ak euh, kii buñ gasee ba pare parce que man def naa constat bi mooy kàmb yi des fois niñ koy buñ ko mënoon gën a compacter gën ko maasale dina doon baax pour faciliter circulation des personnes quoi loolu la woon di ñaar rek lépp yegg ak jàmm ak salaam incha allahu rabbi merci nuyu samay papa yeeg sama yaay fi toog nuyu ñëpp di dégg nañu information yu passé tamit yéeg naa madame Diallo wax na ko léegi maa ngi jógee Saint-Louis di soogaa ñëw bi ñu ñëwee léegi tamit bi may dégg waxtu wax yi li ci ñaxtu bi lu ci ëpp mooy côté sensibilisation bi ak information bi c'est vrai au début projet bi amoon na quelques lënk-lënk yu ci amoon mais macha allah taxaw nañ ci parce que bu waa Koungheul seetloo bu baax depuis presque trois semaines ñoo ngi def communication ci rajo yi à chaque fois à 13h da ngay dégg communiqué bi passé avec numéro téléphone yu nu fa bàyyi à 21h même chose donc ñoo ngi siy góor góorgóorlu côté boobu mais comme ni ñu koy waxee rek dëkk boo ci ñëwee daa am ñu doo xam ne ñoom ñoo nekk ca bunt ba ci ñoom nga war a jaar ñooñ kenn mën leen jéggi ñuy imam yeeg délégué yi ci ñoom la ñu mën a jaar pour lépp baax parce que relais yi nekk sur le terrain heure bu ñu xëyee suba ñoo ngi dugg ci kër yi. di waxtaan ak nit ñi euh, di jël ñaxtu yi tamit di at ci kaw ñi ciy liggéeyanteeg entreprise bi ñoom daam amul benn problème macha allah mais imam yeeg délégué yi ci la nu bokk moo tax waa ISC bi ñoom doon bëgg di liggéey ñoom di gën a yokk liggéey bi ci côté boobu pour l'instant daal li ma mën a wax ci côté sensibilisation moom loolu mooy yokk nañ ko bu baax te boo ñu seetloo semaine bii passé caravane doon na passé jaar ci réseau bi yëpp caravane boo xam ne mu ngi doon informé di wax liggéey bi tënk-tënk yuñ ci mën a am fay bi nan la demee ak njariñu liggéey bi te information boobu mooy passé en même temps ci rajo bi te yamu na si joxe information doon wacc ay numéro téléphone pour képp ku ci am benn souci boo xam ni am na nga woote ñu jot yi te boobu ba léegi maa ngi jot ay appel heure bu ne guddeeg heure bu ne nit ñi dañ lay woo nga jóg dem ba ci ñoom waxtaan ak ñoom numéro ba exactement joxe nañ deux numéro yoo xam mi ngi marché ni ñaa ngi koy utiliser di woote donc côté sensibilisation beeg information bi macha allah ñoo ngi ciy def ay jéego xëy na nag war na yokk comme ni ngeen ko waxee te macha allah daan ci gën a taxaw mais en liggéey ceeg imaam yeeg délégué yi. incha allah incha allah rabbi ok maa ngi voilà merci. Euh, ONAS moom comme ni ko waxee rek chaque fois buy tëgg projet volet communication moom da ci attaché importance loolu moo tax sax tey ñu jël euh, cabinet MSA mu ñëw pour gérer tout ce qui est volet sensibilisation information communication projet bi euh, am nañ ay relais ci terrain bi am nañ ay superviseurs et je pense que bu ñu xoolee résultats yu MSA def à ce jour les gens sont suffisamment informés par rapport à ce projet peut-être lan moo indi coow li rek mooy les désagréments peut-être désagrément yu travaux yi di causé loolu xam nañ ne projet moom bu ñëwee di liggéey il faut mu yàq surtout réseau bi parce que ba ñuy def station yi y avait pas problème parce que station yi jege sore na dëkk bi peut-être lii réseau bi la ñu ngi dugg ci biir koñ yi dinañ di ay désagrément il faut que tamit population yi ñu xaw a indulgent tuuti xaw a euh, jéem a comprendre peut-être l'entreprise am na li mu war a def bu gasee remise en l'état bi aussi to war na ko def parce que tamit ay yoon yoo xam ne nit ñi dañ fay jaar moto yi di jaar oto yi di fa jaar donc remise en l'état bi war nañ ko def mais des fois tamit entreprise bi lan mooy problème am entreprise dafa amoon retard ci travaux yi boo leen seetloo e commencé na depuis des mois et ñëw am retard ñëw peut-être six mois après te projet dafa am délai fin juin au plus tard on doit boucler le projet parce que bailleur bi day ñëw ne man jox naa leen xaalis donc jox ñu euh, délai par rapport aux travaux donc le 30 juin au plus tard on doit boucler projet xëy na loolu moo tax tey ñu ubbi ay front yu bare parce que ñoom it ils ont ouvert beaucoup de fronts pour respecter les délais ils ont eu un retard de 4 à 6 mois maintenant ils veulent rattraper ce retard et retard bi ñu koy kii front yi bare na ñoom it ñu ngi def tout pour accélérer travaux yi il faut que population yi jéem a comprendre euh, cabinet MSA mi ngi ci terrain bi di sensibiliser parce que boo xoolee y a une contribution qu'on demande aux populations les gens au niveau de Koungheul et di ñaax ñu gën a contribuer parce que bu ñu joxewul seen contrepartie bu projet bi demee ñu jeex entreprise bi démobilisé wu ku bëgg a branché wu da nga fay 200000 francs minimum bu dee réseau bi jaar na sa wet si sa si sa koñ donc di ñaax nit ñi ñu contribuer ñoom ñëpp à 100 pour cent pour que vraiment ñëpp mën a raccordé wu ci réseau bi avant la fin de travaux donc euh, kii boobu euh, effort boobu kii ECOTRA di def moo indi désagrément désagrément yëpp ci terrain bi ñoom dañu ubbi front yu bare vraiment di population yi ñu jàppale ñu si cabinet MSI bi comme ni ko Issa waxee ñi ngi def ay euh, des des émissions de sensibilisation d'information des population ñi ngi organiser ay roadshow di sillonner les quartiers pour informer population bi il faut que loolu la de kii moom du du du ko nga rek géngi new boo demee ils te disent la de suite désagrément du ñàkk na dañ koy minimiser rek mais des désagréments il y en aura jusqu'à la fin du projet on di jaar ñaan ñëpp jàpp si y a comité kii est là comité aussi nañu renforcer waa MSA parce que MSA ils ont un effectif boo xam ne xëy na ñu ngi jéem a mailler tous les mais il faut que comité bi aussi à de leur côté les délégués les le conseils municipaux les leaders d'opinion ñu ñuy jàppale ci sensibilisation yi di calmer les gens c'est ce que vous êtes en train de faire vraiment on vous demande aussi de continuer dans ce sens pour que vraiment euh, ay soulèvement bañ fi am wala nit ñi dem ci rajo yi télé yi wax parce que loolu bu ñu ko defee aussi bailleur bi day ne waaw a des problèmes dans le projet alors que Euh, vraiment ñu jàpp si ñëpp jàpp si il reste mois ñu boucler projet bi projet bi am na njëriñam Koungheul a eu la chance de bénéficier d'un réseau d'assainissement parce que euh, Koungheul y a des capitales yoo xam ne ba léegi amuñu réseau dakaar gële y a plein de quartiers yoo xam ne ils n'ont pas de réseau ils utilisent toujours des fosses septiques donc pour des raisons d'équité territorial tey moo tax tey état bi ne tey il foog ma ma laal gox goxaat yi le semi urbain mais boo xoolee dakaar am na réseau quartier yu bari am nañu réseau fii y a des gens yoo xam ne ils vidangent peut-être combien de fois dans le mois yow bu ñu la indee tey réseau tu n'as plus besoin de ta fosse septique parce la fosse tu l'élimines tu branches directement da ngay jël say fosse ak say dégg sax say toilette ak say douche ak yépp branché ko directement ci réseau bi sa fosse nga éliminer ko place su fosse bi mën nga ci def leneen donc avantage yu réseau moom loolu la donc ñuy ñaan vraiment population yi ñu gën gën a les maires tout ce qui est leader yéen ñëpp xam ne ni yéen ci jàppale yi gën ñu jàppale gën a jàppale waa MSA ci sensibilisation bi par rapport ak li mu wax ci euh, beneen côté tali bu bu bu bénéficié wul travaux yi donc un projet c'est ça da ngay am benn enveloppe financière boo xam ne nee nañ la lii lañ leen jox enveloppe bi ngeen ne partie bi lay def mais il y plus tard des extensions de réseau parce que station bi ñu construire capacité am ëpp na li ñuy branché actuellement donc loolu moo tax bu ñuy sax dañuy tabax station boo xam ne dina mën a jël population bi yëpp dans l' avenir donc ONAS day liggéey ci loolu yaay une direction des études et de la planification boo xam ne chaque fois day jéem a def ay liggéey ay études di jéem a xool wut ay financement yoo xam ne pour def ay extension dans le futur donc pour ñu amul pour l' instant donc euh, ONAS bàyyi la ci xel peut-être di si on ne sait pas je sais pas encore on va faire des demandes de fonds yoo xam ne dinañ mën a def ay extension le futur en attendant ñuy am fosse septique yi on a réalisé une station de traitement de boue de vidange am na camion bu war a ñëw nga xam ne au moins pour la vidange on va vous faciliter l' accès à la vidange peut-être loolu xëy na loo xam ne nañ ci wax du yàgg nan la ñuy gérer camion bi nan la ñuy gérer station de traitement de boue de vidange bi ça on va en discuter peut-être entre euh, la mairie et et l'ONAS je pense que loolu la amoon ci li ma ciy wax en attendant ma jox sama yeneen collègues yi ñëw di gërëm population bi population Koungheul bon ñun liggéey nañ ci ay zones yu bëri ci wàllu assainissement mais vraiment fii moom il faut ñu wax que ne voilà problème yi bëriwul trop ci wàllu liggéey bi amuñu lu ñuy gàllankoor trop trop trop nit ñi ils sont trop très accueillants sax si si projet bi bon koñ bu ñu dugg ba génn duñ fa am problème bu bëri euh, duñ fa am problème bu bëri waa voilà dellu di leen di leen gërëmaat di leen santaat ci ci ci ci fànn boobu bon wàllum liggéey bi nag waa comme ni ngeen ko waxee rek kuy defar moom mooy mooy yàqu liñ naan diggante solo ak simmi <laughs> yaramu leen daal xaj na si waaw <laughs> waaw <laughs> waaw kuy kuy defar daal mooy yàqu ñun ñun ñun ñun boo xoolee ñun ñi équipe bi si ñi nekk ci équipe bi yëpp dëkkuñu dëkkuñu Koungheul waaw man mii waaw liggéey bi daal moo fi indi waaw gis naa ne tamit dëkk bu neex la waaw loolu moom foog ñu wax ko quoi dëkk Koungheul moom dëkk bu neex na waaw ñun ñu ngi jóge Dakar mais bon on sent pas trop la différence mis à part tàngaay bi daal moo ñu xaw a sonal mais y a tellement de différence dundin bi affaire yooyu noonu yëpp waaw entreprise bi nag. mooy li li li suñu suñu yaay jee wax léegi rek délai bi dafa dafa tuuti trop ci entreprise bi bon moo waral sax ñuy xaw a accélérer travaux yi moo waral tamit ñu am benn rythme de travail bu ñu yore waaw parfois dañuy xaw a di gaawantu trop même suñu waaj yi nga xawante ne moo ñuy contrôler tout le temps parfois sax dañuy jàppante si liggéey bi yoon la quoi ñuy jàppante si liggéey bi chaque fois sax daf ma koy wax ne ma woy gaawantu bi baax na mais tamit waaw ñuy jaarale affaire ci yoon parfois de ciy kii bon ñu ngi koy jaarale ci yoon tamit mais bon voilà affaire daal moo moo xat trop waa yàq-yàq bi xam nañ ne xaw na bëri trop suñu côté ñu ngi koy jéem a remédier ndànk-ndànk te dinañ si def suñu kétalaay ak kanta dég déglu nañ ñëpp déglu nañ ñëpp lu ñu wax waaw les plaintes son la elles sont réelles ñun ñii sax di def tamit xam nañ ne elles sont réelles waaw elles dinañ gën a yokkaat dinañ gën a indiwaat ay matuwaay pour nga xamante ne dinañ jéem a minimiser le maximum waaw ah, adjoint maire bi sax li mu wax dëgg la saa bu mu wooyee dinaa def le tout ba au moins fi mu ma woon ma jéem ko lu jéem ko defaraat waa suuf si nag fii moo xaw a mel noonu bu ñu liggéeyee ba pare mun nañ maasale ba mu maasoo ñun bu ñu xoolee dinañ xam ne fii du am problème mais parfois bu ñuy gas suuf bi day jaxasoog ndox mi te fii ban la léegi nag bu jaxasoo ak ndox mi si tàng-tàng bi si kees bees bi boo ñëwee xool di nga xam ne fii marché la woon mais nag ak ni muy woowee ni muy gën di avancer affaire yi ay déformation day am moo waral après bu demee ba wow fii mel ni lu wàcc fii mel ni lu yéeg bon dañuy yaakaar ne ñun defaruñ ko alors que jaaroon nañ fa waa mais suuf si ni mu mel la waa dafa xaw a bane trop mais waaw ni ngeen wax rek dinañ gën a defaraat dinañ gën a defaraat en plus tamit ñu jàppale ñu tuuti ci sensibilisation bi ñaar wala ñetti yoon intercepté naa ay nit dañuy romb bon mel ni ku ñuy sànni xeer yéen a ngi yàq suñu dëkk bi mais damay taxaw waxtaan ak ñoom xamal leen ne leen ñun projet bi lii ak lii expliquer leen en détail en fond ñoom dañ dañu naan ah xamewu ko noonu am na ñaari xale sax yu ma si ñuy ñu nekk ay ay CM fii nii ñu ma si expliqué woon ma ne ko yow seen kër ñaata ngeen di fay boo leen di vidange mu ne noo xaw ma ko ma ne ko boo demee kii fayal virage seen kër boo ko laajee boo ñëwee après ñu wax ñu gën a waxtaanaat ci affaire yi waaw côté communication bi ak sensibilisation bi moom il faut ñu jàppale ci entreprise bi bu baax a baax a baax nga xamante ni nit ñi tamit dinañ gën a mën a comprendre ñun lu ñuy def si si liggéey bi waaw maa ngi gërëm ñëpp. Euh, ñun de ñun ñoo fi teewal waa mission de contrôle muy waa EDE e. ñun ñooy saytu liggéey bi di topp waa ECOTRA di xool ba xam. jaaral nañ ko si yoon wala jaaral wuñ ko si yoon maanaam li jëm si qualité liggéey bi daal ouvrage beeg yëpp ak seen engagement yi ñuy jël tamit est-ce que ñu ngi koy respecté wala wuñ ko waaw léegi nag liñ fiy jox wax si ay plainte yooyu yëpp dégg nañ ko léegi ensemble dinañ collaborer comme que comité bi bi ngi fi gëm naa ne liy yombalal liggéey bi la après pour que yenn plainte yoo xamante ni day ñëw ba ci maire bi te mënoon na bañ a egg ba ci maire bi bu ñëwoon si ñun ñii rek mënoon nañ ko régler ensemble te du egg foofu lu gëm naa ni facilité la loo xam daf ñuy gën a yombalal liggéey bi après voilà bu fekkee ñun ñëpp buñ ci duggee ñuy amandoo même information même suivi bi ñu dem ñu mun a topp entreprise bi di ko xool ba xam est-ce que def na li muy def wala deful wala deful li ñu ko xam ne waxoon nañ ko. même ba ci remise en état des lieux yi keroog ba ci suñu papa ji ñëwee Ndour fekk ñu réunion foofu la waxee plainte bi si même jour lañ jël décision ne entreprise bi na jël benn tractopelle spécialement la remise à la kii kii en état des lieux jour réunion kon loolu c'est muy ñu ñuy jot ñuy jot information yi au bon moment pour que ñu mën ko remonter pour que mu yéeg kon loolu moom ñu ngi koy rafetlu bu baax di rafetlu jotaay bi bu baax dégg nañ waxtaan bi jëlee nañ ci ay njëriñ jëlee nañ ay information yu jege ci population bi jëlee nañ ci ay réponses tamit yu jóge ci euh, waa ONAS si yu bëri si lu jëm si wàll extension yeeg yooyu nag bëggoon naa si tontu sax mais comme que tontu na si kon ñu xam ne daal noonu la noon la méngoo daal ñun daal ñoom yéen lañ fi nekkal liggéey bi lañ fi nekkal pour que liggéey bi am de bonne qualité. mais aussi qualité bi mu am mu jaar yoon tamit ñu liggéey ko ci yoon ba bu ñu bu ñu bu ñu lor kenn entreprise bi képp ku mu yàkkal nañ ko informer ñu xam ne kii yéeg lii ak lii ak lii ñu topp ko ba ñu delloo la li lépp fépp fu mu war a defar tamit ñu ñu informer ñu ñu mën a ànd ak ñëpp ànd ak entreprise bi ñu mën a defaraat foofu ba mu jaaraat yoon loolu daal moom mu nekkoon sama kàddu maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf. maa ngi leen di ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu ñëpp ñu fi teew particulièrement monsieur le maire. at ma ni maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam dama xaw a am tuuti mettit nag moo tax euh, particulièrement monsieur le ak waa ONAS ak imam yeeg délégué de quartier yi conseil yi ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam je pense que nii li ma waroon wax euh, suñu euh, mission kii comment il s'appelle Cissé Cissé wax na ko xëy na dafa am benn aspect boo xamante ni dama ko xaw a donc foog ma leeral lu ci mel na bu ñuy gas lu mel na tranché war a dugal ay tuyaux je pense que ni ñu ngi koy def di ko teg ci ay anam yu wóor man je pense que ni sax bu ma xoolee fii euh, assainissement bi ma jógee bu mel na dakaar ak bii dama naan bii liggéey bi dafa yomb ndax li may jànkoonteel ci assainissement bu doon dakaar di dagg ay fil électrique Sonatel je pense que ni fii ak seen mbedd yi moom man awma benn amuñu benn problème gas nag mënoo di gas te doo yàq te lu ñu gas daañu def suñu këmtulaay kàttan ba balaa ñuy wàcc daañu ko suul fi machine bi di yam nag daañu fexe nu ñu ko baliser lu tax sax ñu koy baliser bu doon mbedd bi dafa xat mais seen 30 mètres yi dafa yaatu ñun daañu gas ñii ñi daañu romb di liggéey ñuy jaay daañu jaay borom saret yi daañu romb loolu ñu ngi koy def suñu kamtalaay kàttan fexe ba créer ay passage piéton yoo xamante ni nit ñi daañu circuler normalement loolu on le fait gas bi tamit dugal bi c'est systématique dañuy gas dugal suul on le fait tous les jours léeg-léeg sax nag nit da ngay liggéey am loo xamante ni dalay gàllankoor ba doo ko mën a suul day am mais du souvent très rarement bu amee loolu daañu fexe ñun tam jël suñu matuwaay yu wóor yoo xamante ni ba tax na dina fanaan ba suba te nit du ci gaañu parce que ni man bu dee parti HSE loolu laa géré bu doon sama sago zéro accident mënut a ñàkk accident mënul ñàkk mais zéro accident laay wax te ñi ngi liggéey ci wàllu société bi xali xam di ñu ngi liggéey amuñu kenn ku ci blessé dëkk bi tamit gisuma ci kenn koo xamante ni dox na ba daanu dugg ci kàmb walla dara xëy na interpellé nañ ma benn yoon waa ji da doon jàng sax moto kuy jàng moto nag ak ki mokkal moto bokk loolu mun a ñàkk mais ñu ngi sant yàlla comme yegg si nañu fii la moitié ñu ngi si à 60 pour cent 70 pour cent réalisation amuñu dara loo xamante ni tey woon nañu ñu ni ay blessé grave la wala blessé euh, mortel kon donc loolu dañ koy sant yàlla li si des nag li ngeen wax dëgg la. li sa waay wax diggante sol ak simmi moom yaramu neen force mu am fa donc daañu fexe suñu këmtulaay kàttan boo xoolee li ci biir yëpp waxtaan bi dafay tënku ci poussière ak yoon xam naa ni seen li wolof di waxee ca mujjantal ba ci la ñuy xam dëgg-dëgg ñi comprendre projet bi bu projet bi paree ba jeex ñi ko xamul ci la ñuy xam lan mooy valeur projet bi mais pour le moment Sénégal nag mooy doxee noonu am na koo xamante ni mën nga wax ak moom mun la waaw boo génnee li nga waxoon yépp du ci comprendre dara am na koo xamante ni nag comprendre na ndax xëy na peut-être yàgg na gis ay assainissement ak yooyu day fekk parti bu nekk dafay am ñoo xamante ni ñii comprendre na ñii ñii boo waxee ak ñoom suba ba jan soo du tax ñu comprendre ndax ñu ngi daj ak ñu mel noonu ci yoon dangay gis borom moto bu yegg si ba suñu kaw ñu ni ko droitel mu sànni ñu loxo mais ñun suñu devoir mooy kooku duñ ko topp ci li mu bëgg bu dee ku mën a taxaw daañu taxaw wax ak moom wax ko lii mooy suñu yéene lii moo ñu tax a jóg ñun boo gisee ñu dévier la wala ñu baare yoon bi dafa am lu tax defuñu ko pour suñu coobare bopp wala suñu teewu bakkan dañ koy def ci parce que liggéey bee ko laaj loolu yëpp ñu ngi ciy dem suñu kamtalaay kàttan je pense que nii c'est ça li ci des mooy remise en état yi daañu fexe te boo xoolee am na pàcc boo xamante ni boo leen xoolee foofu jaar nañ fa di ko defaraat ndax bi ñu toggee ñuy wax ñoom remise en état bi yoon yi nangam nangam jëlaat nañu machine bi delloowaat ko foo xamante ni sax paase woon nañ pour defaraat yoon bi kon donc loolu li ngi ci waaw góor nag xaw ma nu ko wolof di waxee yàqul je sais pas ci liggéey wolof bi dafay xaw a kii donc ñu def daal suñu kamtalaay kàttan ba loolu ngeen xamante ni mooy seen mëbët mooy seen ñaxtu bu ni lépp mën nañ ko jeexal waaye je pense que ni daañuy wàññi degré bi nga xamante ni population bi moom lay waxee ci wàllu yoon beeg kii c'était ça l'essentiel loolu la amoon lu may wax. maa leen di nuyu man maay chef bi man maay chef du man maay chef du bi waaw léegi yow lan nga bëgg <laughs> xam nga laaj moom ma wax la. ni ñi liggéey fii ñoom seen bopp ñun ñëpp ñoo bokk même kii waa ECOTRA yëpp ñoo bokk même at su weer dee ñoom ñëpp dañ leen di fay waaw affaire liggéey bi nag pour ay yenn saa ay pax ay kii parce que il faut ngeen comprendre ay nit lañu dañuy xëy fajar ñëw machine day paan mën nañ gas dara machine paan su paane instant boobu foo nit ñi dem tëddiwaat ba suba waat pour ñëwaat ñëwaat su def su depaane ñu soo a suul loolu mooy waral loolu waaye ñun amuñ benn pax boo xam ne ne dañ koy bàyyi muy danger nit di si daanu après di si loru parce que c'est pas normal benn pax bu ndaw sax un mètre sax waroo ko bàyyi doomu aadama di si daanu di di di am di am problème parce que c'est pas normal parce que da ngay da nga xool su da nga nangu ñuy bàyyi foofu sa papa di fa daanu mbaa sa yaay di fa daanu mbaa keneen waaw loolu mooy si si sànc bi ah. pour accident yooyu si ñun hmm. non non si population bi ba mi gis gu ma ko seen waaye gis gu ma ko non loxo dina gas yaakaar naa ne yow aussi dañ lay sant di la gërëm ndax yow aussi vraiment ku baax nga depuis nga commencé ah, ñëw Koungheul yaakaar naa approche bi ngay bi ngay bi nga bi nga am lu am solo la ndax nit ko aussi gan bam mooy wane li li tax ñu koy ñeme waaw mooy sa yaatuwaay macha allah ak képp koo àndal mais aussi ni ngay dérouler aussi say activité ndax ay mag aussi boo leen di sensibiliser aussi ah, dafa laaj benn approche te loolu vraiment lépp mu ngi ci yow. donc ñu ngi lay gërëm au nom di maire au nom di conseil municipal ndax suñuy papa lañ yore ñoom aussi xam naa bu ñu jëlee carte ñoo ñoo ñoo gën a kii sax pour mën a wax loolu ki lay gën a vraiment euh, mate mate waaye au nom du maire daal vraiment ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm vraiment le projet PAMIR à travers vraiment mu ko àndal mooy ONAS. ak ñëpp ñoo xam ne ñoo yor maîtrise d'ouvrage bi di wax ne projet bi de vraiment euh, nit dañ koy rafetlu kii comme li ma wax sànq si njëlbeen lépp loo xam ne ñu ngi si xaar en terme de médiation sociale en terme de mécanisme de gestion des plaintes ah, wax engagé woon ne vraiment pour matale ko en rapport nag avec les partenaires techniques donc wax na ko sànq Cissé ëllëg bu ñu envisagé def benn émission. à la rajo wala à travers la presse locale dañu woo technicien parce que am na waaj wàll boo xam ne ñoom ñoo si mën a jox des informations ñun lu ñu mën a def mooy sensibiliser les populations à travers délégué quartier wala un sage boo xam ne pas Kéba la dana mën a wax ñu dégg ko donc bu boobaa dañ koy defandoor avec lépp ki Ecotra avec MSA ak képp koo xam ne war nga si joxe sa xalaat pour population bi gën a adhéré donc loolu aussi ñu si dalal seen xel donc gannaaw loolu aussi balaa ñu pay ñu rappelé wu rek. Euh, kii ñi nga xam ne ñoo bokk ci ñaari commission yi parce que arrêté la wax na ko sànq loo xam ne maire moo ko génne ne ñi laa def la commission d'information et de sensibilisation ak la commission de médiation arrêté la SG yaakaar naa na jox na leen ku ne benn exemple arrêté bi muy wane ne vraiment solo bi nga xam ne tey comité yooyu am nañ ko te muy doon ay comité yoo xam ne c'est transversal du du du du ONAS rek mais képp lépp loo xam ne projet la muy AGEROUTE ak beneen projet aussi commission boobu dañu nga xaar ndax projet bu ñëw aussi loolu day am day am ay plainte day am ay kuréel yoo xam ne ñoo gérer ces plaintes là donc arrêté yooyu génne woon nañu ko bu yàgg yaakaar naa ko ne jëloon si exemple rek mais day baax aussi ñu rappelé ko moom la ma doon SG vraiment di wax sànq buñ jë buñ jëlee la commission de euh, local d'information et de sensibilisation dañuy wax ne ñi ko composé mooy le maire wala ndawam yaakaar naa mu am tey sañ-sañ ñun ñu toog fa tey en tant que adjoint maire membre yi mooy Moustapha Mbaye conseil municipal Madiaw Mbeng conseil municipal Rokhaya Gueye Sall conseil municipal Souleymane Tunkara conseil municipal Cheikh Omar Sall c'est le représentant des leneen quartier y a un collectif des délégués moom yaakaar naa c'est le président ak un représentant des services techniques waaw services de la mairie donc on a Aïdara mooy responsable des services techniques donc ñooñu ñoo composé le commission la commission locale d'information et de sensibilisation ah, ñu tabb ko par arrêté beneen bi la commission de médiation ñi ko composé mooy le maire wala ndawam le directeur de l'ARD waaw membre yi le directeur de l'ARD le conseil un conseil municipal un représentant communal des délégués de quartier représentant délégué quartier yi le président du conseil de quartier concerné problème fi mu am am na conseil de quartier penc ñu fi donc président bi moom mooy moom aussi day bokk ci commission bi un représentant des impactés tey tey fu projet bi fu mu jaar képp koo xam ne laal na la dana am benn représentant madame Diallo sànq wax na ko waaw ak représentant de l'autorité religieuse imam wala curé ah représentant représentation aussi des. un représentant des associations féminines ku fi teewal ji jigéen ñi ak ki teewal ndaw yi donc mooy commission de médiation donc loolu aussi balaa ñuy doon jeexal da doon baax aussi ñu rappelé ko xam ne lii lu am solo la convocation aussi c'est pas gratuite bu ñu madame Diallo joxe instruction yi le TDR à travers le secrétaire général donc def ne woon cible bi ñii la woon moo tax à tenir vraiment à rappeler leen ko ñu mag commission ne ëllëg aussi mën na leen leen yeneen daje loo xam ne lépp njëriñu askan wi la njëriñu aussi pour mairie bi la te loolu aussi choix bi aussi c'est pas gratuit ndax choix bi aussi madame Diallo wax na ko sànq nit ñoo xam ne aussi bu ñu waxee ñu dégg leen nit ñoo xam ne aussi may nañ leen cër ay kilifa lañ monsieur da si am solo ndax kay kuy réglé kuy def médiation aussi war na xam koo xam ne aussi war nga am benn profil bi ba ki ngay wax aussi mu mën la déglu mën la aussi nopp ba li nga xam ne moom la ñu jàmbal ñu mën ko saafara donc si gàttal madame avec votre vraiment si si daje bi vraiment di delloo kàddu gi kii Pake Ba bu amee lu suñu sànn xeewul après mu def ñaan Pake Ba kàddu gaa ngi loolu